kon nag li nga xam ne nag mooy li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi ko ci fàttali di ko ci bàyyil waxe taalibe yépp mooy nee na nañ xam ne ndax màggal gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom da ko wàcce ci kaw jamono te moo xam la tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax waaye nag neen la ci Sëriñ Tuubaa tontoon ca peste ba ci njaarim rek lay wax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 ay fan rek mu daal tàggoo te xam ngeen ne ci biir yëf ya am na bistubaab tubaab bi ñëw boo peste bi metti na lool te xam ngeen peste moo gën a gaaw gën a garaaw jàngoor ji xew ci àdduna si ren ndax ku mbasadal dañ lay ber génn la boo faatoo sax pour ñu sang la dana jafe Sëriñ Tuubaa nag ku mas a ci teel bi te yàlla def mu mu yóbbu la daana digle ñu sang la te ña lay sang dara du leen ci fekk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 ndax da ngeen di yaakaar ne lu ma soob rek soob na yàlla ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne mu ne lu soob yàlla rek soob na ma ndax ab jàmm balaa suñ borom nangu ak njaamam lépp lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon Serigne Touba nañ xam fa mu nekkoon ci biir loolu itam na ci suñu xel danaa ci dellusiwaat li war a tax suñu xel ci kon Cheikh Mouhamadoul Mountakha wax na ne mu ngi soññ taalibe bi yëpp ñu góor nag ci.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 ulul amri minkum mooy kenn ku ne la lay yilif ci fànn googu mooy sa ulul amri ba ca si mooy fasalu ahla zikri in kuntum la loolu itam xam-xamu médecine di ca tab bi nee na kon li nga xam ne wàllu docteur yi santaane nañ ko ci lu ñu war a wattandiku te la ci jiitu mooy masque yi nga xam ne santaane na ko ne ko taalibe yépp masque ci di ko def góorgóorlu ci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 la ko ab sëriñam tànnal mooy li gën ci moom alxeyru fi maxtaarahu muxtaaru laa fi lati nufusukum taxtaaru jàngoro ji am naag amut ak yépp bu suñu yoon ne ndax jàngoro li sëriñ Tuubaa wax rek is laysa ahadun maasuman min al marad loolu lépp day yi wax Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk yaa nekkal fi suñu Tuubaa boo xasee gëm ne am na digle ci lam ci war a wax kenn du warta jéem a lijjanti jàngoro ji amul loolu weddi wax sëñ bi la te loolu kon war nañoo xoolaat suñu taalib wala suñu murit ndax ab taalibe kat du xool la jub ci xelam mu du ko tànnal sëñ bi wala mu jàpp na sëñ bi nii la war a demee ndax loolu rasul alxuraan sax wartandikoo na nañ ci wartandikoo na nañ ko ci alxuraan wa minhum allasina yusuuna nabi aw yaquluuna huwa usnun ñi wax ne yonte benn nopp la mooy lii xew rek luy bëgg am ñu jàpp ne sëñ bi dañ ko ko wax loolu dañ ko def loo sëriñ bi xam-xamam ak xamam àdduna ak responsabilité bu fekkee dem na ba nit ñi dañ koy influencé kon jërtuñ ñu topp suñu Tuubaa ndax kon suñu yaakaar dañ koy weddiwaat te yëguñ ko ndax euh, ab taalibe ci kanamu ab sëriñam dafa mel ne dafa war a mel ne kal mayyiti bayna yadayil xaasilihi euh, ab néew ci koy sang du ko laaj foo may foo may jëme Sëriñ Tuubaa wax na ko te Sëriñ Tuubaa wax na ne wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci li tax murit saadix ak muritam wér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 ko di ci bëgg am ndax nit ñi dañoo demoon ba jël safari di ko màggal bu ñu àggee ca bisoo ñu bàyyi ko wala lañ ci woon dafa ñu te xam ne nag màggal bi bu ñu koy wax mooy bis ba ndax loolu la ndigalu Sëriñ Tuubaa kon ñi nga xamante taalibe yëpp nag liñ daa dajale di ko def ci safari bi nañ dajale lépp ñëw ci dàbbal ko bi mooy ndigalu sëriñ ndax lu baax lu mu baax baax kat nga am ci ndigal mooy li ci solo kon ab sart la ci li ngay def amal na mooy ndigal kon lañ ci daa def ñoom nañ bàyyi xel ci di ci sensibiliser nit ñi ci waxtu wi ngir ñu xam fi jàngoro ji toll ak fi adduna si toll ngir ñëpp maanaam moytu na ñu ñëpp war a wattandiku ba nga xam ne ñëpp danañ màggal sa jàmm delluwaat ak jàmm sa dara du leen fa topp loolu bokk na ci la jiitu ci li ma waroon li ma waroon wax ba ca dolli ko itam biir pénc mi xam ngeen ne écran géant yi dafa daa bëri loolu itam lu ñu ko gën a mën a wàññi rek ndax gis nañ ne mbooloo mi dañ ci daa daje di seetaan ba loolu itam dana jur gàllankoor kon loolu lépp itam ñu seet ñu ko gën a mën a tase rek ci biir quartier yi mooy liggéey di ca dolliwaat itam biir yi ci biir jumaay loolu itam nañ xam ne aadabu ziyaar dafa am ku jëm si ci kanam Serigne Touba mu wóor la ne da ñëw ngir teewlu si ngir lu rëy yëkkati la fi nga jëm itam gën la fépp ndax ko fa tëdd moo la gën lépp mu wóor la ne mi ngi janow yow kon foofa ku fay tabbi war nga ànd ak teewlu bu rëy war nga ànd ak gu mag gu mag ci sa digg sëriñ bi waaye war a ànd war naa ànd ak ay teggini siyaare rawatina ñun yoonu murit ni ñëpp xame ci ay teggin kon dugg ci biir jumaa ji di ko booleeg ay yuuxu loolu bokk ci adabu ziyaara kon lool itam waaw mu xadamu xidma ñi nga xam ne ñoom la nekk seen loxo nañ ci gën a bàyyi xel ci di soññ nit ñi waaye taalibe yi ñëw itam nañ bàyyi xel ci ne jumaa ji di barab bu ñu yuuxoo du barab bu ñu foye barab la moo xam ne mooy fi gën a màgg ci ñun mooy fi gën a tedd ci ñun ka fa nekkee gënuñu lépp kon loolu itam war nañ koy bàyyi xel bu di ko jeexale nag ci yi nga xam ne soppi nañ ko leen ci màggal gi mooy ku ne xam na ne bari na ay gan yu daan jóge bitim réew ñi ñu leen di ñu leen ci invité ñu ñëw di ànd ak ñun màggat yi ñu ñëpp nag ren ngir xam fi waxtu toll moo tax ren jéggal nañ leen ba déwén ak jàmm incha allah euh, waa ambassadeurs yi nga xam ne ambassade ambassadeurs yi ne Sénégal te teewal fi seeni réew ñooñu ñëpp itam dañ daa ñëw ci bis bi di ko àndal ñoom ñooñu ñëpp itam ngeen xam fi waxtu toll ndax eh, ñun bu fekkee dawuñ ko it ñoom xam nañ nañ koy dawee kon loola itam ñëpp dañ leen koy ba déwén ak jàmm wooy falal leen ko rek mu bañ a diis ñun ñun ñi nga xam ne nag li ñu dund suñ duggee sëñ bi jaaral nañ lu ko ëpp ñun moom loolu moom moom moom fañ ci nekk rek mooy fa ci ñëpp nekk. kon loolu daal mooy liñ ci doon fàttale wax dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu